Ibrahima Gueye maa ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay awa. alors ngay secrétaire général national bu SUDES waaye tamit nekk secrétaire général bu njëkk adjoint confédération euh, syndicat autonome du Sénégal di CSA tey nag ñuy màggal bës bi ñu jagleel wàllum travail décent maanaam travail goo xam te ne daal dina mën a jaar yoon mën nga dellu si rek ci euh, solo su euh, bés bi awa waaw liggéey bu mucc ayib di. dafa nekk loo xam ni liggéeykat bu ne ci bépp réew moom lay sàkku bisub tey bi nag nekk bés bu ñu jagle euh, liggéey boo waxu nga xam ni dañuy jàpp ni liggéey bu mucc ayib la war a doon te euh, bisub tey bi mu nekk bisub nat bisub xool jàngat ndax fii suñu réew ak ci àdduna bi ndax liggéeykat yi ah ñi ngi am liggéey yoo xamee ni liggéey bu baax la liggéey bu ñu mën a suturloo ñoom ak seen njaboot ci wàllu wërsëg ak ci liggéey boo xam ni wax dëgg yàlla ànd na ak dal ànd na aussi ak sécurité su tey bi nag waxtaanee la xay euh, natta la xool la ba pare it waxtaan ak nguur pour xamal kon yi nga xamee ni ay poñ la yoo xam ni xëj na buñ ko defee mën na tax liggéeykat bi gën a mën a nekk ci am liggéey bu ñoñ ba pare nekk ci ak jàmm ak salaam moom ak njabootam. mais ana lan mooy euh, liggéey bu mucc ayib. Oh, liggéey bu mucc ayib d'abord mooy nga am liggéey ndax loolu lu am solo nga am liggéey boo xam ni buñ la ca fayee la ngay fayee ko di nga ci mën a yor sa bopp yor si sa njaboot faj ci say soxla ak sa soxla njaboot mu nekk liggéey boo xam ni aussi ah yaa nga fa di liggéey. waaye amul lenn lu lay xoñoñal amul lenn lu la fay tiital te amul benn risque ci lenn loo xam ne mën na la faa gaañ wala mu yàq la nga nekk nag ci bërëbu liggéeykaay boo xam ni di nga fa mën a wax li nga xamee ni mooy sa ax ak sa yelleef ba pare mu nekk liggéey boo xam ne ni boo ci boo koy liggéey yow di nga yëg sa njaboot yëg askan wi nga nekk yëg ni yokkute am na ci yow am na ci sax njaboot waaye am na aussi ci réew mi. alors nan nga jàngate euh, situation liggéeykat yi euh, de manière générale fii ci Sénégal. waaw euh, katu Sénégal yi nag daanaka mën nañu wax ni ci ab diir yi at yi passé amoon na wax dëgg yàlla tuuti yokk-yokk ak tane ñu wax taneen ci li nga xam ni mooy seen wàllu fayoor li nga xam ni mooy seen wàllu nekkin. ndax lu bari euh, am na loo xam ni liggéeykat yi xeex nañ ko laaj ko nguur gi jàmmarloo ceeg moom ba nguur gi defal leen ko waaye nag euh, liggéey li koy wundu mooy réew mi fi mu toll ci wàllu koom-koom te tey jii wax dëgg yàlla réew mi fi mu toll ci wàllu koom-koom xaw na metti te metti bi euh, li koy expliquer xëj na mooy comme dañu changer nguur gu bees ñi fi nekk xëj na ah, seen euh, jëmukaay ci wàllu nan lañuy yokkee koom-koom bi leeragul ci xelu nit ñi euh, ñu ngi wax lu bari ñu ngi am ay mbëbët yu bari yoo nga xamee ni ñu ngi koy wax euh, nit ñaa ngi leen di xool ci loolu waaye ba léegi mu desande ne leer ci xelu nit ñi ak ci xelu ñi nga xamee ni ñooy tabax bërëbu liggéeykat yi Euh, fi nga xamee ni fa lañ jëm ci wàllu économie ci wàllu koom-koom ak ci wàllu politique loolu nag euh, boolee ko ñi ngu euh, njiit yu bees yi ñëw ci biir société yeeg yenn entreprise yu bëri dañoo daa di gàntal li nga xamee ni mooy liggéey bi nga xamee ni xale yu bëri ñu ngi ko doon liggéey ci yenn société yu bëri loolu nag daa nekk nag loo xam ni situation la boo xamee ni Ah, dafa wàññi lool koom-koom ak mën-mënu liggéeykat yi ci biir réew. Mhm. ndax mën nañu wax ni am liggéey bu mucc ay bokk na ci rek respecter dignité nit ki. Eh, waaw xam nga nit moom loo ko mënti defal <coughs> te respecté woo dignité daanaka defaloo ko dara te salaire dafa bokk ci li nga xamee ni mooy tax nit ki am dignité ndax kii xëy di liggéey di daan dooleem di am loo xamee ni moom lay suturloo ak njabootam dina tax moom nekkinam ci boppam mu nekk nekkin ab bu mucc ayib waaye dina nekk daxit mu nekk ak njabootam ci jàmm ak ci salaam dina taxit gëdd gi mu war a am ci këram ci njabootam ak ci askan wi mu am ko loolu am am salaire daf koy joxe kon tax na ñu jàpp ni dafa am solo que salaire boobu mat sëkk li nga xam ni moom lañ koy doyee mooy mën a fàggaagal lépp luy coona lépp luy ñàkk ci nga xamee ni mooy kiy liggéey ak ak njabootam hmm. te loolu bu amee dina tax liggéeykat bi mën a dund mën a am xel mu dal mën a nekk ak njabootam ñu ànd wér am lu ñuy fu ñuy suturloo et it dina leen permettre aussi wax dëgg yàlla ñu mën a yokk seen am-am ak seen mën-mën daal di yaatal ak neexal seen dund. kon su ma la déggee mu mel nii métier bi euh, war naa mën a fexe ba nit ki mën a am en tout cas dundin gu mucc ayib waaye tamit mën a faj ay soxlam ba ci euh, soxla mbokkam yi. waaw loolu lu am am am solo moo tax d'ailleurs ñuy jaaxle toujours suñu gisee yombal bi nga xamee ni moom la ñenn ñi yombalee dàq ndax dàq nit bu fa mu doon liggéey mooy ñàkkaloo nga ko salaire hmm. te bu ñàkkee salaire daa dinay ñàkk koom-koom ñàkk na am-am commencé na ñàkk dignité ndax la mu mënoon doot ko mën la ko war da koy continuer di war ci njabootam ak ci boppam te dootu ko mën te loolu mën na tas kër mën na indi jafe-jafe mën na indi sax ba liggéeykat bi ci boppam nga xam ne ñàkk na liggéeyam donc ñàkk na salaire am amatul dara mën naa dem ba kooku sax mu jural ko ay feebaru xel wala feebaru yaram yoo xamee ni ah, kenn yéenewu ko kenn hmm. kon nag loolu tax na mu am solo lool ñuy préserver li nga xamee ni mooy emploi te métier yi aussi am métier yu baax loolu aussi dina ko sabab te pourtant bëri na ay gox-goxaat ci àdduna wërngal këpp ñoo xamante ne daanaka amuñu payoor amuñu tamit euh, condition liggéey euh, bu jaar yoon te loolee sax ndax mënut a aussi euh, ci li nga xamante ne mooy koom-koomu réew mi. foofu dina ko dina ko dina ko impacter parce que liggéeykat boo xamee ni dañ koy liggéeyalu te fayuñu ko liñ ko war a fay teguñu ko ci condition liggéey bu baax. fayuñu ko loo xamee ni matal na li nga xame ni mooy ay soxlaam ah, mais liggéeykat boobu du ànd ak mbégte day mer te kooku bu meree dina laaj li nga xamee ni mooy ax ak yelleef su fekkee ni nag dafay laaj li mu nga xam ni mooy ax ak yelleefam ki ka ko war a jox joxu ko ko la muy daal di indi ci am réew mooy rek xëccoo ak xiiro ak ŋaayoo te loolu bu amee ci bérébu liggéeykat yi su fekkee ni liggéeykat yi dañoo lëkkaloo ci seen biir syndicat jàmmarloog ñi nga xamee ni ñooy boroom liggéeykat yi wala nguur gi bu boobaa réew mi day daal di yëngatu te bu réew mi yëngatoo lii am mooy ñi nga xamee ni ñoom ñoo yor seen alal war a ñëw ci réew mi ngir def ko ci créer li nga xamee ni mooy ay bërëbu liggéeykaay ñooñu dootuñu ñëw ba pare dëkk bi dina yëngu-yëngu boo xam ni xëj na dootuñu talati sax naan dañuy yokk koom-koom waaye dañuy nekk ci fay ay lakk rek kon ñu gis ni fay jox ax ak yelleef liggéeykat fay ko li ko war a fay dina dalal am réew et it dina tax économie bi maanaam koom-koomu réew mi dina mën a gën a dox parce que liggéeykat bi kat la nga koy fay ci alal moom lay jël dugalaat ko ci réew mi ndax lépp lu muy jënd ci biir réew mi la koy jëndee donc liggéeykat bi bu fayeekoo moom mooy duufal li nga xamee ni mooy gafakak ki nga xamee ni mooy jaaykat bi te bu fekkee ni jaaykat bi dafa bëgg jaay faw mu commandé jiwaat loo xamee ni beneen liggéeykat moo koy defar donc bu boobaa alal ji dina wër te kenn ku nekk di nga ci mën a comp li nga xam ni mooy sa wërsëg. Hmm. te bu boobaa la ñuy doog wax ni économie réew mi mi ngi dox. alors ci boobee jamono ñu gis ne euh, taux de chômage bi fi mu toll nii euh, dafay gën di yokk ana nan jàngatee situation bi rawatina euh, ci ndaw ñi. waaw loolu nag liñ ciy méttiwul rek mooy gis nañ ni xale yu bëri ñu ngi jël gaal gi di dem te loolu ñàkk yaakaar moo ko moo ko indi ndax bu xale yi demee ba amatu yaakaar ci li nga xamee ni mooy ni dinañu mën a am liggéey. bu ñu mën a suturloo dimbali seeni waajur jàppale leen bu boobaa loolu xale yi mooy tax ñoom ñuy dem sànni seen bopp su biir géej gi ah li tax nag gis nañ ni am na mooy d'abord li ñu wax sànq ni dëkk bi dafa taxaw euh, euh, entreprise yu bëri xëj na ñu ngi commencé di wàññi ay liggéeykat yu ñu amoon bu dee tëjuñu waaye xale yi doon liggéey ci yenn entreprise yu bëri a ah, bi ñenn ñi ñëwee dañ leen arrêté li nga xam ne ni mooy seeni contrat loolu nag mu nekk loo xam ni lu mat a bàyyi xel la parce que xale boo xamee ne ni commencé woon na liggéey am salaire commencé di tabax ak dundam commencé di tabax dundam moom ak njabootam ak ay wéyjuram ba ay wéyjuram am ci moom yaakaar xale boobu ñu xëy suba dakkal li nga xamee ni mooy liggéey boobu dakkal salaire bi nga xam ni moom la amoon mais kooku day daa delluwaat ci li nga xamee ni mooy ñàkk ak ndóol te loolu bu amee évidemment mën na indi ay traumatisme yu doy waar ci biir famille yi ak ci biir xale yooyu hmm. kon fi mu nekk nii wax dëgg yàlla wàllu chômage bi moom nit ñi am nañ ci ak tiit lool lool lool te jàpp nañ ni nguur gi war na saytu bu baax xool naka lay defee ba xale yooyu yëpp mën a amaat liggéey mën a am formation bu dëgër mën a amaat yaakaar ngir mën a toog ci déew parce que nit nag du toog foo xamee ne amul yaakaar. alors ana lan euh, la ci syndicaliste yi jot a def. waaw syndicaliste yi day ci wàllu jëm ci li nga xamee ni mooy xeex chômage jëm ci wàllu li nga xamee ni mooy yokk koom-koom ak am amu liggéeykat yi ah ñun day syndicat yi su bëri gis nañ ni at yi ñu ngi doon jàmmarloo ak nguur gi di ko laaj naka la ñuy def ba yokk li nga xam ne ni mooy am amu jàng liggéeykat yi bokk ci jàngalekat yi bokk na ci ñeneen bépp liggéeykat bu nekk ci fonction publique wala buy liggéey ci wàllu bërëbu privé ndax am am boobu bu yokkoo dina tax liggéeykat bi gën a mën a nekk ak dal ngir mën a liggéey waaye it xaalis boobu comme ni ma ko waxee sànq day wër ci biir réew mi te dina permettre ñu yokk développement économique wu réew mi mais nag li ci ëpp solo te ñu war ko bàyyi xel mooy liggéeykat bi kat nanu jàpp ni dafa bokk ci ñi nga xamee ni ñoom ñooy tax réew mi soqaliku ñoom ñooy tax réew mi ànd ak dal parce que bu amee euh, am-am da koy dugalaat ci réew mi dina tabax ay kër maçon ba dina liggéey dina jënd fer dina jënd ciment dina tax usines yooyu continuer di liggéey kon xam nañ ne alalu réew buñ ko dugalee ci liggéeykat léegi alal jooju day daal di wër te dina wasaaroo ba kenn ku nekk secteur bu nekk di ci mën a am loolu nag moom la syndicaliste yi di taxaw saa su di ko xeex waaye nag ñuy ñaawlu lu baree bari li nga xamee ni mooy dàq yi am ci biir entreprise yi parce que bu fekkee ni yaa ngi xeex ngir chômage mën a dellu ginnaaw waaye ñi jot am liggéey ñu ngi leen di dàq bu boobaa mbir mi day xaw a jafe surtout nag ci wàllu secteur yi nga xam ne mooy secteur bancaire yi ñu gis ni am na ci ay liggéeykat ay délégué yoo xam ne dañu jël dàq leen yàq seen àdduna complètement ñu jàpp ni waa administration du travail war nañu xoolit ñoom it seen taxawaay ci wàllu garantie li nga xam ne mooy emploi yi ak ci secteur yi Mhm. Ibrahima Gueye jërëjëf may fàttali rek ne yow secrétaire général national bu SUDES nga waaye tamit nekk secrétaire général bu njëkk adjoint confédération euh, syndicat autonome bu Sénégal di CSA ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay jaajëfal soxna Awa.